<laughs> xasa te nga bañ a dugg ci lu ba mu nekk xale mag rek <laughs> ah, xale mag quoi alors ñu la nga nuyeen teg yi xam naa ni dajji nga leen seen biir kër ñoom it damay damay nuyu téléspectateurs yi di di la nuyu bu baax yow xësa ci ñàkk ñaan bi ak yaatal bi ah. du nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan xam nga xësa tey ji solal pata yombul <laughs> dabaat non solal pata yombul xam nga pata nga jël formam rek def ko ba ko gis mu neex a xool xësa ma defoon sous-vêtement doo ma dalal fii non sérieusement mais d'accord waaw gis nga tabaarkàlla tisi bi awa bleu jaune. waaw bleu jaune. mais bu tawee dama koy décortiquer. xam nga tissu bi awa ba. ma nga ca Fadia en face lycée ba moo jël tissu bi jox ma tabarkalla. waaw tissu yu baax moo koy joxe. Hmm. ma dem ci njaay téyër mu dagg ko solal ma ko solu pota. waa seen euh, optique ne ma solal fële ca en face. samay euh, xarit lañ samay xarit lañ xam nga leen seen optique. waaw te la ñu wax nee nañu ku baax nga te verre yi nga moo tax ñu inspiré wu sax yow say verre ci la ñu inspiré samay verre seen optique. nekk euh, ma def damay dégg nga naan tas yaakaaru sañse <laughs> ci laa jublu pour xam nga été bi dafa ñëw. waaw ah, nga def bu la ba nit ñi yaakaar mais mais booy tas yaakaar da ngay xool couleur yi agence aussi nga koy tase. mais kii couleur kii couleur bii couleur été la. wuy ma bala jaune moom maa ngi doon gis. wuy ma wuy mm. ma xasa xasa ah. jamono ji la ñëpp lépp di ñor. Ah. dafa la attention. ci la mango di xaaj mais kii sa wala. kii ay lex rek nu boole. <laughs> <laughs> mais Cheikh daal moo génn fii. d'accord macha allah Cheikh Dall génn fi ci été bi ne ma ñëw bi été bi gars yi dañ cee war a kii mi ngi noonu tabarkalla. Hmm. moo génn ci zone ñu gis ne da ngeen di def benn genre groupe je sais pas. yéen ñeent fu ma gis xam nga xam nga xësa. waaw dañ ko war di yaatal. Hmm. tey jii bi may def single bi ñi dañ cee jàpp. dukkure mii nga xam ni ku ne xam na ko mooy ànd ak ñoom daanaa la gis naa ko barki dem gaa yu baax muy def lu neex waaje itam di artiste seetaan naa leen bu baax kii di def lu rëy mm. big mama ñëpp xam ko ñoom itam ñu jàpp ci mm. ñu ni nañ def bu ñu defee single bi comédie musicale mm. war nañ mën tey ji ni musicien bi di ñëwee ànd ak fecc katam ak yëngu katam gis nga gis nga gis nga gis nga tiit naa xoolal loolu xoolal loolu xoolal loolu billaay tiit naa muyeen <laughs> moo tax ñu ñëwit ñu ni dem suñuy feem ak ah. suñuy gaam ah. pour waneen suñu bopp macha allah titre bi kañ la génn Euh, affaire bi bi mu génnee nag dafa tombé ci biir koro yàggul dafa dugg ci biir corona bi mhm. ah. moo tax fësul woon waaye comme génne nañ ci corona bi fi mu ne nii ku bëgg ñu lekk la dëxin mën na ñëw ba fa ne ah. ak lu mënti xew manifestation bu mënti xew ñu indi la suñu paanu dëxin mhm. du ma indi bool de paanu dëxin la ñuy teg ci yow lan ngay dékkee waaw ah, man xesaan nag wax dëgg yàlla nit ñu bari na dañ defe ne ñooxit day lekk mës na ma daal sa benn anecdote ndeysaan ma seet sama benn sëriñu mbàkke mbàkke ndeysaan ku baax maa ngi koy siyaar sëriñ baax a baax ñu dem ànd ak sama ndijaay ñu teg ñu teg bool bi ndeysaan xam nga rek nit ñi bu ñu la gisee te dañuy def noonu ngay lekkee <laughs> sëñ bi ne bisimilah sëñ ay ma daal di kii raxasu ana kudd ma ne ko sëñ bi raxas kudd la waaye sëñ ëpp naa de baa ma jël raxas mun woo kon daal maa dem bay dugal loxo bi rek sëñ jël loxo bi teg ci bool ma ne ah sëñ bi may fixé ma fixé ko waaw daa am kàddu yi ma la bëgg a laaj rek ma ne ko waaye sëñ bi loo may laaj mënu ma damay laaj ba xam ni ngay añee ci télé bi ngay añee <laughs> ma ne ko déedéet añee furno mais nit ñi parce que man pour ma wax la. man li may ndékkee boo xëyee. parce que man garaawul parce que bu ma xëyee damay def euh, parce que damay ñëw bu ma ñëwee ci ndékkaay bi dama naan defal ma mburu 100 mm. bu defee mburu 100 lu mu dee dee ma sànni loola ñetti nen. Mm. xam nga ñetti nen non du la wàññi dara. <laughs> waaw la. nga jël ñetti nen sax ne ko xam nga nen tam dafa dafa wow. Mm. foog nga wut loo ko rattaxale dama naan ko ko man <laughs> boo ci sànni 200 man petit pas dama ko bëgg petit pas ñëpp xam nañ mag petit pas te mënu ma ko bañ a diw ci mburu ma sànni ci tuuti tuuti ba ndambe ko ciy mooy ndambe ju wow jooju. petit pain ak ndambe ngay boole ak nen. waaw moo taxit. lekk a xam sa lekk bëriwul de. de ay ah, ñeme naa bëri bëriwul c'est ça sama lekk bëriwul xam naa lu ma la wax. après di nga añ. waaw dinaa añ nag parce que mais du xam nga ndekki li moo ba doo añ noonu. bi looy def. bi parce que man dama am ñetti kër yoo xam kóllëre hmm. kër ñetti kër yoo mënu ma faa ah. que bu ma añee. ñetti kër ngay añee waaw kër ñoom mère Faly foog ma añ fa. Ah. su ma jógee kër ñoom mère Faly foog ma dugg kër ñoom la nga xamante ni kër yi dafa bari kër ñoom Souleymane Sow mm. su ma génnee kër ñoom Souleymane Sow kër ñoom Cheikh daal rek laay tëje wala kër sëñ Mbacke Thiam aña fa wala kër sëñ Maam mais reer moom du am ah reer moom reer moom may ga rek laay dem Paris <laughs> reer du ma ci laalante kër neen encore damay def defal ma ko ñett omelette defal ma brochette spaghetti ndeysaan damay meñ ca dugg daal naa nëbb li ci ci des <laughs> en tout cas mi lekkam bëriwul waaye gis ngeen que Grégoire moo xaw a lekk sa temps waaw ndaxte euh, moom maa ngi la doon xaar di reetaan ba fàtte woon kale son bi ndax moom boo ñëwee da nga ñëw rek pour ñëw pour comédie te xamul doon non eh dama ñëw tam xam nga tam mën nga mais itam nekk artiste ànd ak mais dama génne single ñëw di ko wane alors bi nga ñuy mujjee may avant ñuy tàggoo lan lay doon waaw bi ma leen mujjee may ah. Euh, dama koy dama koy teg ci sa loxo ndaxte dafa am waaj yoo xamante ni maanaam dafa mën a doser mën a doser ndeysaan mais jàngul nag mu dugg ci benn boutique rek ndeysaan bëgg a jënd lu sedd quoi mu daal di rang gars yi di jënd mu toog mi ngi toog de sawa takk feer bu sañsee ba takku da nga naan déedéet muy mais jàngul ndeysaan mais day jaay nal naan taas ndeysaan gel bi ñëw jaay ma tàngal nangam dem beneen gel bi ñëw jaay ma foofu Fanta mu jox ko keneen ñëw jaay ma mu jox ko ndeysaan mu defee ni boisson yi noonu la quoi mu daal di ñëw ba ci borom boutique bi doy ça va na nga def ni ko ça mu daal jël xaalis teg ne ko jox ma foofu benn Abdourahmane Tine bu sedd. Eh! Abdourahmane Tine ci bopp moom turam la joxe. ne ko jox ma ci bu sedd bu. <laughs> ma ne ko yow Abdourahmane tin loo ciy jël di ci joxe bu sedd. ñàkk a branché. ndax ñàkk a branché ak kii mais gis nga kii gis nga kii mayal ma ko benn Samba ñëwul. Tine kiis ren. ku taal ren. kiis ren mooy nga ni boo ko boole nga plus ni égal nga dañ ko tas <laughs> en tout kontaan naa merci d'être venu euh, kontaan nañ bu baax a baax. xam naa dinañ am benn jour boo xam ni. Mhm. Euh, spécial euh, da nga may préparer benn genre one man show. jeex na ñett ñëpp ngeen ñëw ku ci nekk am waxtu woo xam ne dama président Macky Sall ak. non billahi je Lo. ñoom président Macky nu def. donc maa ngi leen di sant di façon na nga def <laughs> mais xasaar daal yi nga xewal pour lan yu bees la quoi please non yéen ku leen bàyyi di ngeen dox ci ndox mi ah non <laughs> non non non xasaar ku jël xale yi dox ak ci ndox mi parce que daal yi yéen bii ban daal la président ñu ngi jégalu yi ay yéesi la quoi ah, yéesi damay bañ nga boole ci daanu ay yéesi de ngeen rafetal seen solen wooy <laughs> merci d'être venu